ñii de dañoo waxtaanoon xam nañ ni nag yow yaay suñu kilifa di suñu boroom kër lu dëgg ñu amoon nag lu ñu gis xam nga maa moom léegi moom macha allah nëbbantewuñu dara lépp ñooy nasandoo di rocceendoo wax dëgg yàlla waxtaan nañ am nañ loo xam ne nas nañ ko maak moom mhm. bëggoon ko def jëmale ko ci yow mhm. yaay suñu borom kër yaay suñu kilifa ba loo mel mel kilifa nga du dëgg keroog nag action bi ñu fi def dañu koo naqar dañoo def ba marché ba naqar lu ko maa moom ba li ñu jënd sax xamuñu ko laay dëgg la ndax nañ la tontoo ñàkk na kersa te mooy loolu daal dëgg la léegi nag li ñu décidé woon maak assumé ah dañoo dajale woon mhm. comme que yow dangaa bëggoon maak moom ñu nekk si jàmm fi mu toll nii macha allah ñu ngi si jàmm ñooy nasandoo di rocceendoo mhm. yàlla nag lañu yàlla rafal cat amiin yaa rabbi xeexatuñu xuloowatuñu ndax ñun buñu am bu ñu amee jàmm mooy am nga jàmm ba loolu dëgg la bu ñu nekkee di xuloo doo am jàmm déedéet doo nelaw sax du dëgg ñun nag dañoo bëgg nga stable di nelaw di nelaw ba doyal di lekk ba suuf di ba màndi mm-hmm. loolu nag moo tax ñu dajale woon benn som mm-hmm. ñu dañ koy dimbalee mm-hmm. ah asu ah nday ñaay yow sama rakk la xëy na nag seytaane du ñàkk dëgg la waaye yàlla dogal na ne juboo nañ gis nga yii nga may solloo sax maa ngi ciy commencé oh, waaye damaa oh, rus nag ah, oh. ah day damaa rus nag. am na kër mag paa nag warut a tax nga bëgg a. <laughs> day damaa xaw a <laughs> rus tuuti xale nga de. awa yi muy sol ma koy sol. garaaw man hmm. doomu jigéen da lay magaloo ko nangu defal ba mu baax. waa ba ñoo bëggoon waxtaan ak yow ndax kat kër gii gis nga ne jàmm dafay gëj. ñi ngi ci xéeroo ñi ngi ci ŋaayoo fan yi nag gis naa ne dangaa mer mm-hmm. nangoo aye ci man mm-hmm. nangoo aye ci nday njaay te yow ba xam nga ne ñun amuñu ku dul yow kër gii buñ fi ñëwee yaa ñu fi indi mm-hmm. léegi yow boo ayewul ci ñun léegi ñun nu ñuy def moo ma jaaxal ah dañuy tumuraanke ah, ah. guddi ñu daal di jël suñuy njegenaay bokkoo te yow ba yow war nga ko rus sax ndax yow suñuy nawle moo ne ci kër gi xadi baaba waxumay waxa waaye sama nawle la sën mii <laughs> sama nawle la kon yow am na décision yoo xam ne waroo di ko jël rafetul rafetul de dafa ñaaw waaw jabar nag boo koy takk dañ naan la dëkkoo ko mhm. dëkkal ko awaa ah, yow mais boo ñu dëkkalee te dëkkoo wooñu moom ah loolu moom nañ ko dindi ba mu set metti nañ de fi gor de nañ de wax dëgg fa yàlla ndax lekk ak naan am na suñu kër ndey <laughs> suñu kër baay ngi noonu waaw kay maa ngi day ñaay nag waxtaan nañ am na lu ñu dajale mhm. bariwul waaye am na lu mu mën dëgg la jox na ma cent mille ma booleeg sama cent mille muy deux ñu ne nañ la ko jàppale yaa xam nag loo ci bëgg a def Ndeye Ndiaye nag am na xelu boppam ak xalaatu ah, boppam. amoon na lu ma xalaat moo li ma la doon wax rek. ba liggéey du tuut. liggéey mhm. du ndaw. Mhm. fi mu toll nii am gis nga fi ku yore cent franc commencé ko te fi mu toll nii mi ngi ci ay milliards dëgg ndax socc bii boo ko jëndee paquet su euh, euh, kii wu socc bii. di ko dagg di ko jaay. Mhm. boo ci amee fula dëgg di nga dem ba am ay ay tonnes socc di ko jaay. dëgg la de. du mhm. li ma bëgg nag mooy nga wut buti gu mbagg ndax euh, ba toogaay bi yàgg na gis na fu ñu la fii ngay toog boo toogul fii yaa ci buntu kër ga yore si ëppukaay mhm. loolu nag laa ñu bëgg nga jug ci. Ah, def sa boutique gu mbagg fii. ci mhm. bul xeeb tàngal. bul xeep omo bul xeeb dara. Mhm. liggéeyal topp ni bu defee yow boo soxlaatee làmb sa poos. dëgg dëgg di la defal chaque jour nag dafa soon ah, te ñun ñii ñun sax suñu la dara ndax ñaanuñu la àbbuñu la. dëgg ñun ñu ngi defal suñu bopp. kon nag léegi loolu lañ décidé woon nga toog liggéey. Ah. daan sa doole loolu daal lañ bëgg. li daal lañ bëgg nekk sa jàmm merci beaucoup. Euh, fa nga démarré sànq jëkkëru paa xaw bi. ñeewul gone i mooy Sadio Mané mooy borom ah. quatre femmes yi moom paa eh, eh, eh, ñaar li ngeen di wax yëpp c'est faux ay fen ngeen ma wax amu leen benn yërmande. ma ñëw jàmm laay wax ak yéen jàmm da koy wax ci dëgg ñu den da ngay xuloo bu ngeen amoon xol boobu keroog du ngeen doo yor sept cent mille mu yor cinq cent mille ngeen bàyyi kër gi fande ne leen benn ngeen bàyyi kër gi fande ñaar loolu ngeen di wax man maa décidé loolu yéen ñaar dootuma aay ci yéen. Ah. lan c'est fini beru naa waaw sën bu bëggee ma ñëw xadi baa bu bëggee jël li ci def lépp. kon defante la nañ defante. déedéet wuy ma bul laal foofu sax non non di nga ma dégg. ma bul laal foofu yaa ngi dégg hmm, defante la dinañ dinañ defante la dinañ defante. xam nga Sénégal lii leen lañ wax Sénégal li ci biir néeg bi la ñuy génn yóbbu ci mbedd bi sëy ñaar ñi ko seq ci biir ba asamaan say tax yàlla boole leen ni ngeen ne guddi war ngeen am sutura. Hmm. comme weerante la kii li ngay li may def dama la ko wax. ah li muy di feebar kii day saw laal. lan. <laughs> te ma dama ko nëbbal daa feebar ñaari mu ngi ci pot dem ci toilette di ñëwaat xaw ma daa jabet xaw ma foo beeree sax comme nag ayca defante la ayca. waaw. jab xam nga yooyu mosoo ko xam yooyu mosoo koo yëg. waaw hmm. gémmiñam gi lu ko metti poti xeer mel ni ko yor lansper xeer yu xonq di yey mooy def ni gémmiñam gi. waaw ah. ayca ku ne da war denc. yow sa jëkkër li ngeen seex nga nëbb ko yàlla ne nañ mayante sutura Sénégal ni lee fi am weer sa jëkkër weer sa jabar këram këram ñaata yoon lii da nga ko mës a dégg mosoo dégg li affaire bi nag def comme def defante la acca ma wax mu naa ma bitig ma jaay socc nga ma yéen ki tàngal yéen vous parlez un futur millionnaire bientôt ma jot samay million léegi yéen millionnaire baa ngi nii jàkkaarloo te xamu leen ko. wax ci Ndeye Ndiaye démb laa lay wax nii waaw. a fa sa xarit na faji ko. day de. asu bul déglu ah, man kay déglu waaw ah, bu ci wax sax bu ci jaar moom jël ko. waaw bu ko dégluwaat waaye dégg na ko ba pare. mel na eh, ne ah, daa bàyyi ko mu romb jàll bul dugg foofu. man de dugg ma fenn wuy ma bul kaa. man dama la daan gis rek ngay weer chaque jour su ma la laajee. yaa ngi ñëwaat de loolu nañ ko fàtte. ba yaa ngi may tooñ. mais loolu bu amee. yéen hmm. man ñu ni neen la du dëgg. Ah, ah, ah. man loolu ñaan bu eh, ne wut naa ko. Eh, eh. waa léegi fan lañ ko waxee. toog toogul fii naan ma sa leen fonctionnaire. loolu coton tiis nga. bu demee nga yàqu lii dama ko mos a wax. waaw léegi bu fi wax. sutura yàlla ne nañ mayante sutura. as saw de. waaw wuy ma ba. loolu boo amee xembali bi ngay ba faju ji waaw yow jàppale woo ma si ah. ndax bu may naan samay garab yow nga yow doo ma si jàppale kon de da ngeen naan dama koy fàtte duma ma ko naan looloo tax ma am ah, problème fàtte man de bu ma feebaree du ma ah, oh, ma ci ay ñaan sa jàngoro waaw léegi wuy ma ñun léegi da ngay wax ko ci ah, ah. diggante bi dañ koy wér asu xanaa an bu dee geer nga bëggaan mu ñëwaat nañ ko déedéet ay xarel waaye jàngoro dañ koy weer danga koy teg ci digg ëtt bii ku ci am saafara saafara ko mm-hmm. bu ma tegal waaw ma man maa moom samay bu ma tegal dara ci ah heure añ moom dinaa toog fii nday na wax dëgg yaa ma wax ko ci diggu añ kaay waaw ba booba ah nga xool yow moom tame nga doo téye ko. waaw waaw baax na waaw. et eh, pousse ma nga wéer nga wéer bu ma la weeree fii nga moo eh, weer. di nga wéer xembali bi ngay ba. li man li ma muñ lépp xamoo ko dama ne pat jàpp sama njàmbur. ba fonctionné te woo ba jariñoo dara lii dañ may xembali. <laughs> waaw heureusement à côté la koy def. léegi nag xaw ma woon li ci am naa point bu ma jàppee Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye na xam ne maa moom la kër Eh, wuy ma ah yaa ma ko wax de man de yëguma ko woon. déedéet ah, yëguma ko de mi ngi wuy ma dinaa la jox trois cent mille waaye ànd ak noppi. kooku amul problème. ànd ak noppi dañ ngoon. léegi nii bu ma jógee. lu ma wax nag neen waaw. ay gee sax dama koy fax bu xali baaba ki dama koy faxas. xali baaba nga war a fas yow loolu du xali baaba. buntu laay dafa maa liggéey dama koy takk. mu loolu mënuma la ci egg ndax yaa ngi jubóot nday ñaay di wax daf maa liggéey soomu laa dem këram mu jox ma soow mi lu ma wax ma ne waaw li may yebal ñi tayuma ko. kañ ngay fas xalibaam caam caam laa yebal ak bàjjen ñoo dem waxtaanee. mais kañ koy xaar ba ma jotti lii ba programme rek fii laa koy tàppal sa kanam ba ma jotti. léegi mu génn kër gi. naay la bàyyi noonu. di nga ko toog ba gudd muy làkki chinois xaw ma lu mu doon. néeg bi di tàkk. fase ma ci li mu dugg lan la. Ah, ci man mii ba yàqu de. merci day si jàmm. maa ngi nii sonn tàngaay bi. damaa liggéey woon moo tax gisuma woon sa appel. yow moom kenn mënu laa jot téléphone yow moom woo la woo Macky Sall sax ko gën a yomb. wax loolu. wuuuy day si jàmm. maa ngi nii. ma li ma la doon doyee mooy. waaw damaa kontaan. ndax bu dul woon yow heure bi fekk na ma jeel. bàjjen loolu du dara yaay suñu bàjjen. ni da xam lu tax kër gi loo fi teg mu sàcc ko man man mère ya daak sàcc xale yi. bàjjen nag denc bu rafet moo gën ji ñaata bu ñaaw bàyyil yooyu. waaw man damaa denc denc bu rafet ba sonn. loolu du dara ah. wuyu ma si loo nekk. maa ngi nii sonn bay bëgg a dee. kenn faalewu ma kenn konté wu ma ci kër gi. yaa ngi may coaché. léegi attaquant. lan laa teg ko la mais pour bu. day rampé bi ñu ne ko def ndànk ndànk. cëpp say loxo nga xam ne lépp dëgg la. bàjjen ba xam nga ne yaa wóor. waxoon naa la bu xare bu àndandoo man la. yaay sama meilleure amie man. waaye yow waaye waaye kon jeex na waaye meilleure amie ngoog waaye. désormais yaay besti ma meilleure. besti. besti ma meilleure. besti ma meilleure. xaw ma nuñ koy découper waaye besti. ma meilleure xanaa mooy sama copine intime. ah noonu la. ah defe naa noonu laa xam. mais léegi xale di ko wax besti ma meilleure. moom daal xam naa ne waaw waaw. jàppal bu bu xale bu baax la. Ah. jabaram ji ku bon la. <laughs> toggul lu neex yàqul lu neex raxasul fóotul bu jigéen jël rastaam ñetti rastaam teg ko nii ku nii ba mu dëgër këcc sol jiin moom dafa mel ni rek kan xam xale bu góor la kan xamul mu doon baaxul de kooku wérut dafa am sama benn xarit bu may nuroo bu dëkk euh, Géejawaay Aminta Ndiaye ay rasta la bëgg fëkk fekk ma nga noonu xam ne ma wax ma xam naa ko Aminta Ndiaye mo mooy koy dégg si koñ ba mais naa ko nag de mu ko koy tablette ñuy xam leen da tudd di wala li nga def. waaw ma bàjjee non mais coach lay bu. bu daal yenn saa yi damay dugg moom ci biir néeg wala muy génn di liggéey rek ma topp ko ne ko xale bi da nga koy takk day dugg ci biir kër gi ndax yow da ngaa war a dugg da ngaa war a dugg ci biir kër gi di jaagar jaagar jaar nii di jaar nii di jaabante di ñëw waaw. tu es femme élégance. naa la ko wax. rouge. bàjjen yaa wóor. mu jéem def sa greffage wàcce ko nii waaye def ay ras sax man xale bii ni may def du. yàlla ma ko yàlla jéggal sax man. ñooñu fooruñu. waaw. <laughs> Fadjal yaa ngi toog. waaw kii du Abi. ça ci jàmm. ça va. <laughs> Abi boobu tey dégguma la di. baba Dieng sànq maa ngi dugg di la xool. Euh, dafa am ñu ma waxtaanal ci kër gi wax dëgg yàlla ñu xamal ma ni bàjjen mooy bàyyi te su ma bëggee sëy bi neex bàjjen faaw ma la ci boole moo tax fi ne nii daal du ma laa buggoon takk xarit nga nekk sama xarit. may defanteeg yow yu baax ma fa daal bàjjen xaw a saa sa garde-robe tuuti dama laa jëndal cinq douze jaaru wu din tegal ci ay jaaru or yoo xam ne moom jaaroo yi rek vingt cinq grammes la bàjjen bàjjen chaîne ba boo ko takkee day walangaan parce que damaa bëgg mu wàcc bàgg ba bëgg naa boo ne nii ci xew yi ñu gis la xam ne kii mooy bàjjenu Umu kii mais bàjjenu bu bu mi nga xam ne moom a gën gënal. Mm-hmm. soo paree dama ci teg 100000 yoo xam ne moom ngay ñawee wu di ni bàjjen. garde bi laa bëgg nga changé ko. Mm-hmm. di xëy di sañse mm-hmm. di def ba mu baax ndax ne bëgg naa kubéer bi daal moom mais xeeñ li ci biteel yaay sama bàjjenu jëkkër nag moom bëgg naa mu neex. naa def loolu. def naa ko ba pare bàjjen. ñaw yi moom dama ko yóbbu yóbbu ko ci Alaaji Njaay léegi muy bokk ca mbay ma ca jaxaaw. doomi nday am di. ay waay. non fi ma jëlee chat mën naa ñàkk xepp sax fi mu ne nii. bàjjen nga def. yaa ko moom. xam nga dañ jigéen day xees mbaamu ñuul. kuk waaye bëggee sokolo ko day jaaxale bokkam. ëpp na. bu nee na yow la. su ko waxee. nee na yow. su ko waxul. nee na yow. sa ginaar dafa doole sa lewal fër sa ndigg di xalam. gis nga di ngay sëy ci biir kër gi nii dama koo gis yow chaque jour dama lay observé di la xool di la topp yaa nga ca waañ wa yaa nga ca togg ba yaa nga ca yàq ga yaa nga ca raxas ba yaa ga ñaaf ngay def loolu nag man bëggoon naa la ko wax bu yàgg sax bëggoon naa la wax loolu sax ne li ngay def da ngaa il faut buutal la jànq jëru na nga gën a góorgóor jéeg bu baax yow sëy kenn bu yow la jël teg na ci biir kër gi yaay aawo yaay ñaareel yaay ñetteel yaay léppam. ci ma fi yombul de. ku la yoo ko lay déjati ku ma ñeme ba war maa. waaye kenn du la la loolu yombul de baax loo togg tey reer. <laughs> méchoui. méchoui. te dama ah. cay def tuuti pitax. ndax temps yi dama lay gis ngay xaw a tërëf dama bëgg nga am tuuti feer. xam nga daal ci woon xool ndax mi ngi gos. jërëjëf jërëjëf yow laa bëgg dégg nga man damaa kontaan ci yow. yaay sama xarit kontaan naa ci ay toog yow. jéeg nii lay def jéeg nii di wiic aw taatam di di tëgal di dem am saw taat yoroo taatu tuut jéeg rafet civilisé la civilisation ak man de valeur de l'homme il faut conscience pratique. Badiane yaa ngi may gis wala gisoo ma yow. ah xam naa. non ma. lu xew. Badiane yow yaa mën a jaay géej gi jaay man naka jekk ma xool ak say sil ak sa mbaxane bu wegg la xaw ma sa musuur nga ne yow yaay dangaa def sa ongul bàjjan yow ndekki seytaane nga de eh, taxawal nag luñ ma wax ci yow rek maa ngi koy bëgg gëm xam nga jikko moom ci buntu kër dong lay taxaw di la xaar boo yàggee ci biir mu fekk si la mais tey wan nga mos a jikko waaye bettu ma ci yow nag bettu ma ci yow de te xam nga lu ma lay xamal samay 300000 mayu ma la ko dama la koo lebal hmm. bor la. Eh, eh, eh, taxawal taxawal loolu yëpp waxuma ko amul répp amul dara sama xaalis. xaalis kat. sama xaalis. ay hypercule man jàng naa karaté taekwondo kung fu lépp dama ko jàng ci biir kër gi xamal naa leen nag. yow loolu yëpp nga jàng dama cee toog du ma la déglu sama waaw da nga déglu nag ah dëgg nga déglu de man lu tax man kër gi ki respecté ma ñi ci mbedd mi ñëw bëgg a ñëw sama biir kër gi di fekk lamba naag sama kaw pour lan war a rege rege regeton regeton yow ku lay respecté kee nga xam ne sëyut bawut dóorul fayul attewul xeex tey nga ne yow yaay daf laa solal tubéy noonu sa ngemb mi ngi lay xaar te nga xam non non non non bàjjen gis nga man doo encaissé samay 300000 ba pare di ma jaay jikkoy hypocrite eh. xam nga lu ma lay xamal yaa ne woon danga may coaché coach bi force la léegi yow yaay ki may coaché bu daf may takk ma sëy si si kër gi te man ngay àndal su ma la ko waxee nga gëm ko xool ma du may gis man di mi respecté wuñ ma. kenn du la respecté ndax jikko bii boo ko yàggee di am kenn du la respecté ñii sax ñoo lay gën demee. waa ah, dëgg sama 300000. sorte sorte waaw man man man dama war a xaru xaw ma lan laa war a def jam sama bopp war ma xaru bu kii waxee fii kii wax fi ñu jàpp bàjjan di ko tël mel ni ku yor ku yor ballon basket di basket mooy nii sax basket di def nii naan ciwu aywa bàjjan moo ñàkk saas. dama war sax mbaa ma benn yoon xaama ah, jug man maa la woolu woon tey parce que la situation commence à dégénérer keroog dama ñëw seen kër di xaar xadi mais sa papa daf ma jànni moom nga ne yow it maa yàpp yam moo tax ngay ne ma si ñii di bal seen bal bu ma nee xun mu dal ma dafay man du ma sàmm morom bi may dégg te nga gaaw nga wax li ngay wax damaa yàqamti. xam li moo tax euh, man mënu ma jubóo yow fois damay wax ak yow du sérieux mais yow dafa mel ni tu n'es pas tout awa maak yow dama bëgg nga wax ak sa àqulaay taala ndax séq nañu dara man du ma ni jëlee naa la ci restaurant ba ñu ànd dem sama appartement ma servir la kafe ñu waxtaan après ma déposé la xam nga ni dara dara dara dara xewu fa. man loolu jarul nga ma koy wax ndax maa la gën a xam ne sama diggante ak yow dara mosu fee am man du ma jigéen bu bon. yaa ngi dégg du ma jigéen boo xamante ne dañuy ñëw jaar sama kaw jàll non non non non sax demee noonu mais nag naa xam benn affaire. gis nga sama kër du ma nangu nga fay ñëw nangu ngay nekk ak sama sœur bu sax sonn Xadi sama sœur la sama deret la kenn du ko def lu ko naqari boo ñëwee nag ci moom fulla ak fayda ma nangu la mais bu dee beneen tànk fii mus du fi naanee ñeex sama kër kenn du fa def lu bon te loolu problème de jeunesse rek la woon mais fi ma toll nii nii nii Xadi dama koo bëgg te soxna laa ko bëgg te fi mu toll nii pare na lu mu ma jaral ma def ko dama bëgg nag nga jàppale ma nga wax dëgg gi parce que sa papa mere na ma xadi moom may dénigré su ma ko woowee téléphone sax jëlatuma li ma bëgg nag mooy nga jàppale ma même s'il faut que je te donne de l'argent ma jox la ko. eh affaire lu argent ko fi waxati de keroog ba nga ma woowee naa ma dama lay dugal xaalis bi lan laa la wax. kon jotoo ko. lan mooy kon jotoo ko dama ni la nga téye sa xaalis yow da ngay nax di jëmale sa bopp. eh xaalis bi dama koo jël man soxlawu ma sa xaalis. waaw oh, kon bi la. du euh, yow xam nga ma du xam nga ma yow xam nga lan laa capable man soxlawu ma sa un franc soxlawu ma daray góor man damay liggéey defal sama bopp yaa ngi may dégg loolu pour mu leer tey. sa xaalis laalu ma dama ni la nga téye sa xaalis yooyu da ngay daf daf nag dafoo gën a jàpp te bu ma yënga nag mais awa waaw jàppale ma moo gën si yi ngay def waxal dëgg gi mu leer ci yow rek laa mën a sukkandiku pour convaincre Khady Khady dama koo bëgg te soxna laa ko bëgg doxuma benn tànku caaxaan yow rek yaa ma ci mën a dimbale. man aw ma dëgg bu may nëbb aw ma dëgg bu may nëbb wala nëbb dëgg boo xamante ne dama koy dafa yow nit nga est man li man la wax dafa leer. nee naa la sama sœur bu fekkee fulla moo la indi si moom mën ngaa ñëw bu dee beneen tànk mën ngay gis doo ko gis. bu leer na sa bopp. leer na bu ma indee ci genre lié yi nag wax naa lu leer na yokku ñàkk fayda la mais lépp ñun la lépp ñun la soo jógee Europe dem jàngi ba ñëw yor sa xaalis defe ne mën ngaa tas àdduna bi. xale bu jigéen bu ne rek nga bëgg koo iri moo ngi ni maa ngi nii bëgg xadi taqal na ma wax na ma lu ne waaye nag ça va ma servir de leçon